la aussi je dois préciser que agriculture dafa nekk comme li nga doon wax sànq transversalité transversalité mu ngi dugg ci tey xam nga des fois nga gis ñu ni baykat yi oignon bi tuuru na da nga koy dégg mais tey bu ñu amoon ay capacité de stockage yu leen di permettre loolu xam ni tey dañ koy sànni wala ñu koy bazarder wala ñu koy euh, wala muy nëb bu ñu amoon capacité de stockage bi nga xamante ni mois yi passé xëy na oignon boobu surplus boobu doon yàqu mun nañ ko denc foon fenn kon bu ñu yegsee ci période bi du seer parce que la loi de l'offre et la demande mooy loolu moom dans tous les secteurs c'est valable que ça soit agriculture que ça soit pêche que ça soit secteur bu mën di nekk la loi de l'offre et la demande mooy am si ajoute maintenant loolu ngeen di wax mën na nekk loolu nag sera relève du contrôle l'État wax nañ ni euh, à travers le ministère du commerce euh, teg nañ ay mécanismes pour di mën a contrôler le marché Euh, les commerçants di bañ a def lu ñuy wax spéculation mooy jël benn produit denc ko euh, ba mu mel ni créer benn benn benn manque artificiel pour maintenant jaay ko lu gën a cher en tout cas euh, grosso modo li mu mën a wax ci ci ci ci oignon bi par rapport au contexte de la tabaski loolu laa si mën a wax di wax ni Sénégal quels que soient les efforts il faut reconnaître que nag maintenant l'État a fait beaucoup d'efforts euh, malheureusement li am mooy ni tey en 2017 bi ñu atteindre l'autosuffisance alimentaire avec le docteur Pa Ablaye Seck avec son programme PRACAS et d'ailleurs foofu tamit euh, dinaa wax la nga xamante ni bu ñu bëggee di réussir les politiques agricoles euh, parce que politique agricole bi ci la ñuy tënk bépp spéculation li ñuy wax nii yëpp muy autosuffisance ak souveranté alimentaire ak lu mën di doon. Mm-hmm. il faudrait ñu dépolitiser. les politiques agricoles. Mm-hmm. tey si vous vous rappelez bien en 2014 lan moo nekkoon en vogue avec Mimi cadence. Mm-hmm. accélérer la cadence. <laughs> on a mis dans notre programme agricole cadence. cadence programme d' accélération de l' agriculture sénégalaise. waaye. Mm-hmm. Mm-hmm. et comme qui dirait c' est un programme de Pape Ablaye Seck qui devait être évalué en 2017. quand on a évalué on s' rendu compte que. malgré beaucoup d'efforts que l'État a fait à travers le ministère de l'Agriculture, l'autosuffisance en riz n'a pas été atteinte. C'est la réalité. Maintenant, il fallait faire une évaluation objective, xool lan moo manqué parce que tey Macky Sall bu mu ñëwee dafa teg un programme muy PSE boo xamante ni c'est jusqu'en 2035 muy une vision mu nekk loo xamante ni tey en 2035 évidemment avec des plans quinquennaux ñu koy teg di ko articuler mais noonu tamit la war a demee si secteur agricole ba nga xamante ni bi Ablaye Seck évalué ñu xam ni amul loolu avec Moussa Balde waruñu woon ñëw moom tamit il vient avec son programme avec le PASAT. Mm-hmm. Là, c'est le technicien qui parle, hein? c'est le syndicaliste qui parle. Mm-hmm. Je ne suis pas au non du ministère de l'Agriculture. Mm-hmm. Ils ont leur technicien. Moi, je suis syndicaliste, je technicien. Mais c'est le technicien qui parle et qui donne li nga xamante ni moom la xalaat mooy il faut dépolitiser les politiques agricoles quand Ali Ngouille est venu voilà quand Ali Ngouille est venu il est venu avec son son SAS souveraineté stratégie souveraineté alimentaire c'est pourquoi vous voyez on parle de souveraineté alimentaire souveraineté alimentaire comme si c'est quelque chose de nouveau hmm. mais toutes les politiques agricoles leur vocation première c'est c'est pour la souveraineté alimentaire ouais hmm. donc loolu mooy tax dañuy juge fii dem fee juge fii dem fee mhm. sans pour autant qu'on fasse l'évaluation euh, nécessaire pour xool manquement yi parce que on était dans une bonne dynamique wax naa la ni autosuffisance mhm. en oignon en terme de production mhm. maanaam bu ñu nee Sénégal dafa soxla trois cent soixante mille tonnes pour mën a assurer son autosuffisance en oignon amoon nañ ko mais il y un problème de stockage pour mën a denc pour sur toute la durée de l'année mhm. ñu mën a am euh, oignon en quantité en disponibilité n'est-ce pas mais il fallait faire loolu taxaw foofu s'il faut aller sur PSE comment dirais-je PRACAS 2 def ko en intégrant évidemment les nouvelles orientations di du gouvernement ak les nouvelles aspirations du président mm. mais dañuy jël un document teg ko ne jëlaat bële beneen bi ci am tamit si par rapport toujours ñun li nga xamante ni en tant que syndicaliste en tant que technicien document yooyu tamit même l'approche dans l'élaboration day am problème parce que ñun on ne peut pas nekk ci secteur bi ñu élaborer ay programmes yoo xamante ne yow des fois dégg nga ci am. doole leen ci bokk. c'est des gens yoo xamante ni xëy na euh, ñi ko war a bind parce que tey booy bind document il faut l'appropriation. Mhm. il faut une approche. inclusive et participative. Hmm. comme ni eh, politiciens di wax ci seen dialogue. bien bëggoon nañ si wax sax xëy na on nous a pas donné l'occasion de parler de des de cas. tey loolu moo war a am parce que tey politique agricole boo mën di taxawal objectif boo mën di am muy souveraineté alimentaire muy sécurité alimentaire muy autosuffisance bu mën di doon mais ñun one est des fonctionnaires de l'État ñun tey ñooy mettre en œuvre ces politiques là. donc il faut nous impliquer en amont et en aval pour ñu bokk ci xam lépp pour mën a joxe suñu xalaat pour mën a wax ni lii kat waruñu ko woon defee nii nii lañ ko waroon defee loolu moo war am malheureusement c'est pas toujours le cas